maanaam alkitab wa sunna sëriñ bi moom ba may jàngale tasawuf di ci diggal waa këram lam leen njëkk a sant mooy ñu takkook téere bi ci teg ko ci sunna te jaar ci sunna alkitab wa sunna waaw loolu loolu sëñ bi moo tax mu ne ab murit moom du yàlla ci lu dut foo ko fekk mi ngi jukkib alquran da daan jàngaloo mag ñi ñaar fukki isbi alkuraan par bis jàngaloo leneen junniy bayti xasida sikarloo leen ba noppi ñu dem liggéey yi te bu lekk jotee ñu mos tuuti nelaw tuuti wax tuuti mos tuuti jóg mm-hmm. nii la gaa ñu baax ñu def ba far ndomba ga mm-hmm. daawuñ lekk ba rek daawuñ naan ba mànd ci nopp noppalu ci la sëñ Tuubaa yare yare mag ñi boo demee Tiwaawan cooc la alaaj Malik xaw a dee alaaj Malik du rakk ju mbokkal baay du mag ju mbokkal baay waaye bi mu ñëwee ci réew mi doy wakkiru na ci yàlla doyloo yàlla liggéeyal yàlla dem ci ab dëkk ba ba dëkk boobu bépp maase ànd jox ko seen bopp sañcu Tiwaawan gaay la gane àdduna ñu duppee ko Cerno Ale Malick Sow mu jàngal ko alxuraan foofa baayam teel a génn àdduna ca doy rek ko mu del siwaat fii mais gëm boppam ak dëggal yàlla teg yàlla ni ni mbokkam bu baax mi def di Sëriñ Tuubaa Xaadimu Rasuul ba mu ne bërët la wuti yàlla te nangu dara lu ko gàllankoor digganteem ak boroom Sëriñ Abdul Ahad waxoon na ko noonu ne woon ba mu ne bërët jëm ci yàlla loo ko bëgg a wan la neen lu yàlla daf lay wax ne awma soxla ci loolu ca yàlla rekk laa jëm ba ne taraw liis nag rilwanullahi taala akbar wax na naw mi hibadatun rabbi la sharika lahu xalbi yu dabbiru ayan tuurisul hikama boo demee kër Cheikh Ibrahima Niass ci réew mi la juddoo di doomi soxna mais lii mu wax nii tey jii imaam Cheikh Baye soo génnee ci réew mi dem Nigéria dem Algérie dem Burkina Faso dem Bénin foofa dem da fekk jéego yi Cheikh Ibrahima mu gindi fa ay junniy junni nit yoo xam ne bu toog ñoom mën naa am sawar a yaay leen. nan ngay mën a amee nag mbooloo mu mel nii dëkk ci sam réew ñu ne woon taala ku ci am benn sam réew jag yow yow nga am ci lu ëpp fukk nga am ci lu am fukk Sénégal dama yaakaar ne li ñu am mas sama dégg Cheikh Anta di wax ne senegal day mel ne tax boo xam ne dañ koo def or ak jamaa ba ba ba muy fees ñu fa benn nefere mbaam teg ci bopp bunt bi boo ci yemee da ngay ne faw nga fel ko hmm. loolu mat naa bàyyi xel mat naa jàngat hmm. daal di wax ne nag ne ci kanam tuuti nag fer am tiit ak fer ay nax dafa jot hmm. daal di wax na nag danañ fer am tiit waaye fer ay nax lu jafe la nee fer am tiit Sénégal gépp def nañ ko bu njëkk nee na benn policier genre benn alkaati tubaab rek moo daan génn dëkk bépp daw waaye léegi ñi waxuma ne tubaab waaye góornóor yeeg ministère yeeg alkaati yeeg ñëpp ay jaxasoog ñoom ku ci wax lu dul noonu nga ne ko du noonu. nee na kon fer nañu am tiit nee na fer ay nax nag mooy làkk wi ñuy làkk te muy làkk tubaab bi. Mm-hmm. daal di wax na la ñuy wax ci assemblée ba. di ko làkk di ko tudde ay luwaa ak nangam nangam suñu leen ko firiloon ci ay olof ay yat ngeen ne war fekk leen fa nit dafa war a fer ay nax moo taxoon sëñ bi ne walay sa yujibu sawaadul jismi safaaxatal fataa wa soo ul fahmi mm. nit ki wërta xeeb boppam en tant que der bu ñuul léegi nag damay ñëw balaa sëñ Moustapha Diop xam naa ne dafa ne ci ay xat-xat seen imam Cheikh Baye di dellusiwaat mm. ak fin jëm dëgg bala ñuy tupp taab bi mm. da tudd ci wàllu économique mm. li événement religieux yi di def ci wàllu économie bu Sénégal génnal màggalu Touba un mois la boo xamante ni bii lépp Sénégal ci wàllu économie mi ngi dox màggalu Touba buy génn rek treize jours rek gàmmu Tiwaawan dugg na semaine wala deux semaine trois semaines ñëpp a nga Tiwaawan lépp yi continuer di dox noonu lay continuer dugg Njaasaan noonu lay continuer dugg Cenaba noonu lay continuer ba ci ziare général yi yi Omar yéen yi amal ziare général yi waa kër Cheikh Ibrahima Niass de am noonu lay continuer ca gàmmu ya gàmmu yooyu am Kaolack nga xeet loolu nga xam daanaka douze mois yi trois cent soixante cinq jours yi duñ ci amal ñetti fan yu jàll ci benn activité religieuse ñëw na boo ñëwut boo xam ne lu gàtt gàtt dana dugal un milliard ci économie bu Sénégal dama bëggoon ñu ñëw ci accès boobu laata ñuy jàll. ok sëñ Fallou jërëjëf xam naa sang macha allah. Mm, sëñ euh, Seydina kaddu yi rafet na xam-xame na. sukran jërëjëf. Euh, li nga doon wax daa mel dama koo junjoon ne benn bu ne daa doyoon thème. Mm. yaa ngi tudd sax événement religieux yi. Mm. waaye am na lu ko jiitu am na yoo xam ne ñoo gën a permanent. mooy Sénégal koom-koomam mi ngi baasewu ci mbay tey boo jëlee réew mi ñi fiy bay danga leen di delloo ci nit yi diine yi koom-koomu mbay mi bi ci des li ñuy tuddee ber ab dëkk sanc waaw sanc dëkk fi mu ne dëkk bu tubaab sanc boo koy wër ci réew mii da sonn lool te xam nga lu taxoon ñu ber dëkk bi mooy mooy ñett yi ëppaloon solo doomu aadama buy dund mooy fexe ba nit ki sàmm ngoram sàmm boppam sàmm diineem léegi nag comme ñett yooyu ñoo taxoon ñuy sos ñett yi boo nee dama ko bëgg a dëkk dëkk sos mooy li gën a metti ci lépp lu ñuy def loo gis nit di ko jariñoo rek am na ko ne ca nga ku ca sonnoon lool jëriñëwu ca ba tey waaye si daara ji ma sanc ni ñaari néeg dong laa fa def yooyu baraag waaye li ma daj ah, <laughs> kon ñi ko defi dëkk daf koy tool moo tax booy tudd wàllu gën naa profond loolu fi mu ne boo gisee li tax euh, koom-koomu réew mi tey ñi ci ëpp doole boo leen dee tudd da ngay delluwaat ci waa tasawuf da ngay delluwaat ci seeni kilifa te loolu loolu dafay sax ba fi tubaab ba bi fi tubaab yi nekk da jël ay maam Seex Anta ak ñooñu waaw daanaka li ëppoon ci koom-koom réew mi seen i loxo la nekkoon ndax dañoo jàngoon ay tubaab déedéet ah lan moo lan moo defoon ci ñoom intelligence bi ñu amoon du woon ja du làkki tubaab mooy li nga wax léegi <laughs> dama wax ne bokk na ci li trompé réew mi biñ commencé diine ji ab jànkatu tubaab bëgg ko interpréter ci ay calcul yu ma xamul di boole ay chiffres gis na yooyu bi ko tàmbalee nga commencé gis drapage yu bëri di am mm-hmm. ndax mag ñi mënoon nañoo dégg tubaab nam leen neexee wallaahi mais lu tax ñu teg foofu yooyu. Hmm. léegi nag dañoo commencé ñun ñun ñooy bëgg a suñu bopp ci bëgg a xajal ñooñu jànge beneen culture. Hmm. ñu ñëw jël culture boobu ne dañ koy interpréter texte yii mag ñi tëraloon. te bokkuñu. Hmm. te soree nañ. ndax ndax làkk yi dañoo maanaam làkk yi. xalaatin yaf ciy feeñ. surtout làkk woo xam ne sax lalu laluwul ci ngëm-ngëm. xam nga tey boo nee làngu arab danga nga naan ñun li ñu boole ak moom mooy ngëm-ngëm. Mhm. bu dutoon ngëm-ngëm arab du tus. moom yam rek. waaye da koy tane sax bu boobaa. dëgg bu boobaa sax daf koy tane. mais moo tax gis nga mag ñi ak li ñu doon dégg dégg en arab. Mhm. gis nga fekk nga fenn fu ñu naan lay nettali histoire naan la sëñ bi da doon làkkante naar ba ay arab. déedéet buy wax ci làkku nationalam bii lay waxee. Sëñ Abdoulaye mayuma la doguma la Sëñ laa dafa am ku ñëw ci moom di ko lakk ay arab yoo xam ne ba noppi Sëñ laa daal di koy tontu kii wolof mhm. mu ne ko ndax dangaa déggul arab mu ne ko lu ñu ma li nga wax be kon dégg naa ko. Mhm. firi luñ ma ko waaw xam naa li nga wax. waaye nag damaa ragal ne lu waaye bari xam-xam ba ñëw jàkkaarloog sëñ Tuubaa mi doog ko jaay. Mhm. ndax moom ma ko dégg gën a dégg foog te la moo tax kon wàllu koom-koom bu ñu koy tudd ci kii bi dañuy maam événement yi lu ciy gaar la moom. Mhm. mais jëmmi koom-koom bi sax nga xamante ne dañ cee teg loxo. loolu biñ ci loxo yi njabootu tasawuf. dëgg la tey jii boo boo génn woon li niti tasawuf ak niti daara téye ci ndax bu ñu nit daaree day dellu ci nit tasawuf ndax ñoo formé ñooñu boo génne woon li ñu am ci réew mi réew mi def yaramu neen dëgg la kon wàllu économique loolu moom waxaale wuñ ko même boo jëlee ci wàllu politique tey ñi ñi ci gën a ñi ci ñi ci am ci ñoom yaakaar di leen tudd ba léegi mooy ñi nga xamante ne daara laal na leen tudd nga léegi Cheikh Anta Diop ñi daara laala ko néew luñ ñu am am ci culture tubaab ba la leen daara laale lañ leen di nawee wallaahi mooy dox ba fii ñu toll nii léegi loolu nag bu fekkente ne dañu fa am kenn benn waaye bu bari xam-xamam bëgg a dikk ignorer loolu moom ci boppam moom mooy njëkk yëg ne moom am na problème waaw waaw ndax dafay dafay dafay dem ba yàgg mu perte xobbiya li ñuy tudde ak ak mbëggeel wala wuddiya sax mën naa koo tudde noonu ak cofeel day dem ba perte ko bu ko nit nag bu xësee ba perte yooyu dootul wax jàmm léegi nag fit na jooju muy wax day dem ba wër ko boo gisee sëriñ bi di wax naan xulubu man lam yuhibbuni ala wajalin wala yulaaquuna ma raamu wala albaaba mm-hmm. kan lay waxal xoli xoli xol yi pourtant waxul nit déedéet waaye daf ne xol yi ma bëggut yi nga xam ne dañ ma dencal rek ak ak noonu mm-hmm. ci njàqare la ñuy wéy parce que lu tax bis bu seen ñuy gis sama taraangay yokk may gën a kawe di gën a yaatu ku boobaa ala wajalin sëñ da ko waxaale ba noppi nag ñi bokkaloon jiw bépp yu laa xuuna maa raamu gis nga li ñuy sàkku ci man pour jéem a nërmeel hmm. duñ mas a dajeeg moom walal baabata yàlla duna ubbil bunti xéewal gis nga nga xam ne kon wàllu euh, boo demee koom-koom hmm. da tudd rek tey affaire koom-koom nga tudd màggal yi yooyu damay wax ne yu gaar la hmm. annuellement la yee léeg-léeg benn bu ci nekk day dikk annuellement mais dama ne la bis bu set ak waxtu wu nekk koom-koom bi réew mi doxe boo ci roccee li ci waa tasawuf am dama ne réew mi def yaramu neen eh, Imam Cheikh Baye maa ngi lay xaaraat ci téléphone bi 943 48 28